ataytuka ya mahmudu bi sihri immati wa yaxjilu fi misaanukum wasnu qudrati ataytuka ya mahmudu bi sihri niyati wa yaxjilu fi misaanukum wasnu qudrati ataytuka ya mahmudu bi sihri immati wa xaafikum fi sihri adda qariati ma samba jëlel say mbir tabal it sa xel xaram ci Mahmoud Silem Tayba biram laa fi xel mati ma sàmba jëlal say mbir tabal it sa xel xaram ma sàmba jëlal say mbir tabal it sa xel xaram ci Mahmoud Silem Tayba biram laa fi xel mati ma sàmba jëlal say mbir tabal it sa xel xaram ci Mahmoud Silem Tayba biram laa fi xel mati ku am sañ-sañu seexir wa baatin te réy mbir te gis naa jëmam ja xam ko man baayu am sati ko am sañ-sañub sayir wa baatin te réy mbir te gis naa jëmam ja xam ko man baayu am sati faggu teefu bambala te moo tax mu yéeme mbir te man yar man muñ kii fu nu koy amee tati faggu teefu bambala te moo tax mu yéeme mbir te man yarta man muñ kii fu nu koy ameetati paggu teefu bambala te moo tax mu yéeme mbir te man yarta man muñ kii fu nu koy ameetati paggu teefu bambala te moo tax mu yéeme mbir te man yar te man muñ kii fu nu koy ameetati ca ga ak dal te am ngor rafet jikko di asgor di yaaram saf xorom bul werantati ca maandu ga ak dal te am ngor rafet jikko di asgor di yaaram saf xorom bul werantati te digg fiq man naw xaroo din wa mantiqa te man sarfu xaafis la demoo raw du ngot ngoti te dégg fiq man naw xaroo din wa mantiqa kaman sarfu aafis la te moo raw du ngot ngoti walaw kunta sax baanan laak sartu waadiyan ndekon tey ci mahmud silla mbir yë ma walaw kuntu sax baanan laak sartu waadiyan ndekon tey ci mahmud silla mbir yë ma walaw kunta sax baanan laak waa bi am kon tey ci Mahmoud Sylla mbir ya ma xuusati subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin Sëriñ Bàcc Touré waaye ko Alaaji Seck na ko ko dégg yàlla sama